une dent contre ci livre ci blanc bi nga xam ni. comme ni ngeen ko amee contre PDS produire na ko en 2016. bi nu jógee Antoine Diome dafa leen di déranger. mais Antoine du question Antoine Diome mais Antoine dafa far ñun parti démocratique Sénégal. amul lu ngeen ko dencal. non du moom. parce que man j'étais au tribunal quand il traitait Karim Wade de choses. waaw mais attends cest dire que aussi même ñun du question Antoine Diome. il aurait été quelqu'un boo xam ni secrétariat exécutif provisoire bu euh, euh, APR la nekk on dirait la même chose. bul fàtte ni lii ñuy wax ci Antoine dine warul yor mbir yi moom la ñu doon wax ci Aly Ngouille Ndiaye xam nga di ko wax ci ñeneen wax mhm. ci mbay Ndiaye wax ko ci keneen wax ko ci keneen parce que dañ jàpp ni régression démocratique la ñu jël l'organisation des élections au Sénégal ñu di ko jox koo xam ne dafa far ci parti mhm. or ñun gis nga li ñu organiser élection yi Cheikh Gueye. moo organisé vous avez combien de députés ak ak même bi. combien de maires ak de communes yu ngeen remporté. mais yow lan nga fi gisoon Aly Ngouille Ndiaye mu wax fi bi mu nekk ministre de l' intérieur. mais voilà mais le mais le nag nekk ministre ne moom taxawaayam parce que ba muy wax dañ ko interroger mu gàlloo doo ko jàqu ministre am ni moom mooy mu fexe inscrire ay militants organiser leen fexe ñu voté ji pour ñu gagner donc